ak wërsëgalam ga ak rayam ga ak dekkilam ga ak dundalam ga ak njëriñam ga ak loram ga seen làmmeñ yi jàllal bi ko wax ko seen cër yi xommatu pour jëfe loola waaye waay dem leen ngeen wuyu ji yàlla ngeen wuyu ji sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag wuyu gi xooteem yi dafa bëri buñ ne boo toogee nga dégg noddu fajar allahu akbar allahu akbar ba muy daaneg dana wax ne xaya ala salaati xaya alal falaahi foofa yàllaa xoote ci julli kon dem leen ngeen wuyu ko waaye tamit bu weeru koor wi joxee jotee ñu ne weer wi feeñ na ñaari way maandu gis nañ ko wala kenn ko maandu sax gis na ko ndax seytaane du laxasu mukk ci seede kenn bay wariloo nit bay warloo nit ñi su boobaa tamit yaa ayyuhal insaanu istajiibu lillaahi yaxsina dem leen ngeen wuyu ji yàlla ci nangoo xoor weeram wa ci kutiba alaykumu siyaamu nga yor alal asaka war ca nga war a génnee la ca war a war jox ko ña ko moom wuyu war ngaa wuyu ji yàlla ci yaa ayyuhal insaanu istajiibu lillaahi waaye tamit ca xaj màkka ja am nga alal ju mën a dem am nga santé bi sécurité bi am na kon wa asin fi naasi bil xajji jooja taxaw na ki sa kanam demal nga wuyu ci xoote booba yàlla jaarale woon suñ maam Ibrahima téeréb yàlla bi taxaw ci sa kanam nga war koo jàng bët bu set def ko muy doos maanaam bis boo xëyee ba ngoon jot jàngoo dara ci téeréb yàlla bi bis booba waroo koo boole ci sa dund kooku bis bu niil la jullit bët bu set lu mu lekk lekk ndigg bu xëyee war naa jël doos ci alquran waaye ñàkk fayda ba jël kafe muy sa doos mbaa ataaye ji wala mu suba teel bi wala ceebu midi bi waaye yooyu yépp taxut nga jël doos ci alxuraan bis booba wala bis yooya dafa perte ci sa dund gi faqra wa maa tayassara min alquran nañ ciy bàyyi xel kon jàngaxal quran wuy la ci xooteeb yàlla bi mu ne jàngaleen sama téere bi di jàppandi ci yéen demeet jokk bokk noona toppatoo sa soxna yar say doom fonk say waajur yëpp dugg na ci yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wali rasuli nag mooy dundal sunna su yonantu bi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nga roy ko dàll par dàll ba mel ni la góor ak yàlla gu tedd ga waxoon maam alaaji malik nee na radiallahu anhu Mm, a ah, yonent bi de mën na maa suti tànk waaye fu mu teg tànkam bu ko tegee ma teg sama tànk kon loola nga roy yonent bi ci waxam roy yonent bi ci jëfam roy yonent bi ci doxinam roy yonent bi ci doxlaan ci doxlaan ci doxalanam ak ci jëflanteem kooku mooy wali rasool yi waaye tamit buñ la xooxee ci turu yàlla xoola ci turu yonent bi dem leen ngeen wuyu ji ko ida daakum li maa yuxyikum waa dafa laa xoo ci lu mu la xoo ñëw leen ci firéem alquran bi xool na ci isa daakum li maa yuxyikum xool na la ci ñëw leen ñi tërlu xaddisu yonantu bi kooku isa daakum li maa yuxyikum noddukat bi xool na ci julli gi isa daakum li maa yuxyikum ñëw na xool la ci conférence boo xam ne raxut politique yàlla rek lañ fay wax waaye fekkee ne pour conférence mbaa gàmm goo xam ne ba ñoo sédd yàlla sédd ñëpp ndef rek la ñu sédd yàlla danañ danañ sédd politicien ya danañ sédd ñañ ko tuddee danañ sédd borom enveloppe ya danañ sedd borom daraja ya ba dara de sut lu dul temps ba gën a bon fekk nit ñu bëri nelaw nañ ñu door a wax nag léegi nañ jublu ci gàmmu gi yéex ngeen a gàmmu di loola kay ku la ca xooxooxu la ci ida daxakum li maa yuxyikum bu conférence mele noona tamit ku la ca xooxooxu la ci ida daxakum li maa yuxyikum li nga woote def ko ci invitation bi damaa woote gàmm bu ca defal lu dul gàmm maa woote na ñëw leen ziyaara bu ca dugal lu dul ziyaara yaa woote lu dul màggal kon bu ca dugal lu dul màggal yaa woote conférence conférence tey mooy wax ak nit ñi ci diine waaye loo ca dugalati rek yow bu la nit ñu xuy see te loola nekku ci rek xor nga leen isa daakum li maa yuhyikum amut ku la ca woo ci lu duhut loola boo xamee fayda bu ci perdal sa temps bi nga dem wéet jàng alquran julli ci yonantu bi jul ay rakkaa moo ëpp yool téeméer junne yoon ndax bari na woote buñ la woo nga nga jublu ca loo safee yiw si fa bàkkaar yow far nag safaan ba nga fa jëlee da nga faa sifee bàkkaar sippee koo fa aw xiw moo tax yàlla ne waalamu ana laa yaxulu bayna al mari wa qalbihi wa annahu ilayhi tuxsaruna li nekk ci seen xol yi yàlla jiitu na leen ca li fa li xol yi fasagut la yàlla xam waxuma la lañ fas mu daanee aaya ja ne wallahi yéen ñëpp dañ leen pang ëllëg ci kanam yàlla dajale leen ñeen raflehu góor ak jigéen kenn du sol tubéy kenn du sol mbubb xawraay kese waaye njàqare ga ak tiitaange ga dana dem ba toll foo xam ne kenn ku ne waxuma la sa xawraay bopp sax doo ko tal waxuma la sa xawraay morom yàlla ne nag ragal leen na joo xam ne bu ñëwee ña ko rek du xam ci ñoom wattaqu fitnatan laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa fitna goo xam ne bu ñëwee ña tooñ rek du ca xem waaye foofa ñax gu wow dana lakkaale ñax gu ñax gu tooy sëriñ Abdullah ne akay ñax gu wow mën naa lakk ñax gu tooy buñ bokkee taat kon nag boo gisee lu bon ci pénc mi ñu ko fii def nga bokk ak gaa yi taat te waxoo ca bu mbir mi ñëwee bu lakk bu leen lakkee lakkaale la te loolu moo ñu dal ci ji jamono buñ toogee fii waa jee nekk ca région Kolda di woote ak nubuwatoog risaala xamee alquraan yi boppam tabaarakallaahu tuddee ko jam jam padaar jàllal bi ko xamee kaabay boppam ñu koy wër xoote bi ñaar fukki xam ñu kilifa yi am kàddu déggooguñ kenn addu ca mu su boobaa nag hee mbugalam yàlla mi bu ñëwee kenn du ca mucc ñëpp lay dal fa mu gën a kawee ba ca ña ci gën a suuf ñi am pouvoir tamit dégguñu kenn taxaw ne na fi jug lu dul boo waxee ñu ne pays pays laay la laayi nag mooy lu la neex gëmal lu la neex dundal sa yoon nekku ci bul déranger kenn rek nangam ak nangam baax na yàlla ne sama yoon bu ci seen yoon nekkut bis bu sama mbugal mi wàccee seen yoon dana ca nekk wattaqu fitnatan laa tusibanna al-ladhina minkum xaasa kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax aayaat yaa ngoog loolu lay jàngale nañu wuyu ji yàlla wuyu yonantu bi gannaaw tamit buñ ñu xooxee ci yàlla xoo ci yonantu bi amul dara luñ ca rax la ca nekk lépp luy dundal suñ xol yu dee yi la su boobaa ala kulli nañ ko wuy ji waaye su fekkee nag lañ ñu woo tuddee ko yàlla tuddee ko yonantu bi ndef la dafay gën a rey suñ xol yi nañ ko wan gannaaw ndax kat kuy du wuyu ji ngaa war a wuyu ji lay dundal afa man kaanam kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaxal naa la ja'alnaa lahu nuuran yamshi naa fi nnaasi kaman masaluhu fi zulumaati laysa bi xaarijin la jóge suratul an'aam ca aaya 122 jar na bàyyi xel te loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax ku nit ki buy xuyu jën a xuyu ji lu koy dundal waaye loo xuyu ji lu lay rey jarul dem jarul sonn lu la waa ji xoo nga ne concert ba nañ dem toroxali saytaane yaa ñàkk fay de xanaa nañ dem kay saytaane toroxal ñu ndax ba ngeen dem paas ngeen joxe seen xaalis ba ngeen di dem xet ak sàngara gaag cigarette sama ngay jolli góor ak jigéen ña jaxasoo ñaq ya jolli xasaw xut loolu lépp seytaane toroxal na leen te fekk yéen deexagu leen moo tax kon kuy dem dundal dee huyu julli lay dundal wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina jooja mosa am solo nasala bihi ruuhul amin ala qalbika li takuna min al munfirina jooja yépp ci xeeti xoote yi nañ ko ci baxi xel kon nag xoote yaa di xooteeb yàlla mooy daawatun lil xayaati bi kulli maaniha ma ci xam solo loola nag la ca jiitu mooy woote boo xam ne dafay dundal sa pas-pas doo fa dégg baat doo fa dégg kuy bokkaale yàlla doo fa dégg kuy jël mbindéef di ko xëppali lam doon doo fa dégg waxi xuraafaat doo fa dégg waxi caaxaan ba mel ni daraba laahu masalan rajulan fihi shurakaau mutashaakisuuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masalan alhamdulilah bal aktarum laa ya'lamuuna sumar aaya vingt yooya kon jar naa baxi xel waaye kalay woo sax moom libéré gut ci boppam bu ne dama laa bëgg a du sotti jaam boo xam ne ña ko bokkaate dañoo bëri bu ñuy yëkkatee ñuy tëral bu ñuy tëralee ñuy yëkkati man taxem ak jaam boo xam ne dafa jël léppam jébbal ko boromam kon nag booy wuyu ji wuyu jël ku jébbal léppam yàlla boo demee wuy ju ko mu jébbal la yàlla ngeen bokk xem ca képp am jàmm ci yàlla mi nga xam ne moone ne wa qul alhamdulillahi alladi lam yattaxid waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulki wa lam yakun lahu waliyun min azulli wa kabbirhu takbiran kon demal wuy luy dundal sa pas-pas waaye woote yu bari boo ko wuy jee sa pas-pas bi dee ñi ray ko tayal loola ci jaamu yàlla tayal loola ci lépp lu baax wuyu ji lépp lu lay may force ak kartan ak ak yëkkatiku ci sa pas-pas ba nga mën faa jëlee bokk ci inna akramakum indallahi atqaakum su ko defee bokk ci dalika alkitab laa rayba fi hudan lilmuttaqina bokk ci wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi lanaam aya 153 nga dugg ci li yàlla ne rabbana laa tusi qulubana baxda id hadaytana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab yooyu yëpp boo ca duggee rek da nga am jàmm xam sutura am naataange am xéewal su ko defee kon nag xuyu ji yàlla xuyu ji leen yonantu bi buñ leen wooyee ci yàlla ci bi bu ngeen ca fekkee lu duddal seen xol dem leen xuyu ji su ko defee kon la yonent bi waxoon la wa allimannaka suratan hiya azamu suwari fi alquran qabla an taxruja min almasjidi suma axasa bi yadi falama arada an yaxruja qultu lahu an lam taqul la uallimannaka suratan hiya azamu suratin fi alquran qaala alhamdulilahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim allazi utiituhu benn saxaabiyu la muy abi said ibnul mualla mu ne dama doon julli ci jàkkaay yontu mu xooma wuyuwuma ko ba mu paree ma ne ko yaa rasulallahi inni kuntu usalli dama doon julli moo tax bi ma wooyee mënuma laa wuyu mu ne ko allam yaqulillahu ndax yàlla fa waxu ne istajibu lillahi li rasuli ida daakum lima yuxyikum yàlla ak yonent bi buñ leen wooyee fu mu leen mën a fekk baleen lépp da ngeen dem wuyu ji ko danaa la xamal tey saar bi gën a màgg ci saari alquran yi njëkk ngay génn jàkka ñi mun nañu dem bay bëgg génn waxul ma dara ma ne ko yaa waxoon ba la génn mu ne ah kay saar bi gën a màgg ci alquran kooku mooy suratul fatiha mooy juróom-ñaari aay yi ñaaral ci jàng mooy juróom-ñaari aay yi ñu ñaaral ci wàcc faatiha ñaari yoon la wàcc moo tax ñu ko tudd sab'ul masaani wàcce na màkka bañ farataalee julli wàcce na te madinatul munawara waaye tamit mooy juróom-ñaari aaya yi ñaaral ci njàng li xëpp ci baati faatiha yi dañ koo baabu yaa commencé woon ne bismillahi rahmani rahim ne alhamdulillahi rabbil alamin waxal rahmani rahim kon rahmani rahim ñëw na ñaari yoon nga ne arrahmani rahim ne maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu baatab iyyaka ñëw na ñaari yoon ndax yaa ne iyyaka na'budu ne wa iyyaka nasta'inu baatab siraata ñëw na ñaari yoon ndax yaa ne ihdina siraata almustaqima ne siraata alladina baatab alayhim ñëw na ñaari yoon an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim kon li ëpp ci ay baatam dañ ko ñaar ñaaral moo tax ñu ko tuddee sab'ul masaani waaye tamit saar la wow juróom-ñaari aaya la te dafa wàcc ñaari yoon keroog la ko ko yonent bi jàngal moo tax ci jëlbeeni ku daan julli bu la yonent bi hooyee da ngay dagg julli nga huyu ko bu waxam jeexee nga continuer nag lañ tere loola ne kuy bu la yonent bi hooyee tu mën ngaa continuer sa julli ga sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yaa ngóog dañ daan wuyu ji yonent bi ci fu leen mën a fekk daanañ dund ak yonent bi amul kiiraay amul bëkk néeg ñiy jaxasoog yonent bi ci jàkka ja di jaxasoog yonent bi ca marsaya di jaxasoog moom ci tukki ak ci teewaay di jaxasoog moom ci wax yeeg jëf yi diiri dundam ba yàlla na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi mooy médecin yi mooy médecin wu médecin yi saxaabaam yépp ak xeetam yi ay malaatam lañ wallahi ab médecin nag bu tëjoo malade ya mënuñ koo gis malaat yépp dee moo tax li xew ji jamono kilifa yuy tëju bu leen seen taalibe soxlaa mënuñ leen a gis yow ma yow médecin bi boo tëjoo sa malade yi dee say taalibe ñooy say malade su boobaa nag ñii dañuy jot ci ay masala bu bëgg ku leen gàggante bu fekkee nga tëju musiba am ñaareel bi ñii dañoo xamee ay jafe-jafe yàqoo bëgg ku leen defare boo tëjoo ñi rayante ñii seen pas-pasa yàqu ñi xaajoo ku ko defar ñii seen diine yàqu ñi xaajoo ku leen orienté boo tëjoo rek musiba am saa yu malade ma saa yu médecin tëjoo malaat dee moo tax sëriñ laa damay tëju nangami nangam kenn du ma mën a gis xóorul ci ji jamono de ko ko def da nga ko layoog yàlla de tëju ñaara fi ne su fekkee yow sa njariñ dafa nekk ci biti boo tëjoo loru bu sa njariñ bu sa njariñ a nekkee ci biti yow ña ngay jariñ ñu ngi ci biti te foog nga génn mën leen a jariñ boo tëjoo lore te ñaara fi ne diina ji laa darara wala diraara ñaar yi rek la bëggul loru bëggul lore yow nag su fekkee da ngaa gàddul njariñ loo xam ne ña ko yoreen ci biti boo tëjoo lor leen su fekkee yow sa bopp tamit dafa xaajowoo sax ku la defar lu ñu la war a mën a yokkal ci gën a koy yokkal ñu ngi ci biti ala kulli xaal boo nekkee ci biir lor sa bopp. te kon dugg nga ci laa darara wala diraara kon nag tëju tëju yi jaru ko matu ko yenn yi ala kulli xaal nag tëju ñaari fan ñetti fan jaamu yàlla gën a wéetal sa borom te du la yàqal julli juróom yi moo taxoon sax yonent bi dafay wax booy booy booy booy def lextikaaf ak bu ko daan def dem ci jàkka ja ngir mën a julli julli mbooloo yi waaye léeg-léeg nga def euh, tëju yoo xam ne la ngay la ngay dàkk di ko tudd ala kulli xaal li nga baxi ca jàkka moo ko doole ndax dootoo mën a julliti mbooloo te jullit mbooloo lu la koy xañ jara jaratu ko waaye nekk fi tamit bu ñu la joxee xal waaye téeméeri junne nga tëju une semaine sa yoon ci wasifaaw mbooloo sa yoon ci julli julli mburoo julli julli mbooloo ma ngir téeméeri junne rek waaye waay waaye benn benn rakka xam mbooloo moo ëpp téeméeri milliard dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax kon saxaba yëpp fu leen yonantu bi mos a wooyee rek ñu dem wuyu ji ko ndax ñu roy yonantu ci loola ci tijjeeku rek di jonjoxanteeg taalibeem yeeg saaba yi ci marché yi ci tukki mi ci teewaay bi ci nangam fuñ mën a dem rek moom la ñuy dajee tabaarakallaahu mostoon a hiiru wëlis ñu koy soxla te fekk mënuñ koo gis ndax moo gàddu njariñel ñi ci biti bu tëjoo rek ñi ci biti ñëpp loru moo tax xoolal istijaabatu omar ibn alxataab boo jëlee buxaari yoog muslim ñoo ko andi mu bokk ci xadiisu ibnu abi mulayka moo wax mu ne abdullahi ibnu subayru moo ma nettali ne aqra ibnu xaabis ñëwal na yonantu bi a aboubacar ne yaa rasulallahi kii nang ko fal jaraaf te nitam ña mu jiite leen xomar ne ko bul ko fal mukk ñoom ñaar bu ko fal fal ko bu ko fal fal ko ba aboubacar gis ne mooy kilifa gi wax na xomar bëgg a dajji waxam ja ba aboubacar wax xomar ne ko fa qaala aboubacar li xomar maa aratta illa xilaaf yi yow daal xuuteeg man rek moo la neex fa qaala omar maa arattu xilaafaka bëggumaa xuuteeg yow aaya ja wàcc ci yaay walit na amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi fawqa sawti nabi xoola loolu yonentoo minal njabootam ba bu dara amee dañ koy debaatar ci ci pénc mi mu wax kii wax kii gisee nii kii gisee nii xoola loolu ci abu Aboubacar ak lii kooka bu tëju woon lii du mën a am ba mu mujj xatte leen aaya ji wàcc waaye keroog tamit ba yàlla di leeral sàngara xaraamal ga ne fa hal antum mooy baleen Omar taxaw ne ko intahay naa intahay naa yaa rabbi kon ndax allah innal xabra xat xarumat bu ko defee nañu jàll bi ko jël seen dansan yëpp toj koog butéel yaag weer ya sotti ko ci mbedd yi ay xati xat bu tawee rek da ngay gis madinatul munawara day niin ngir ak sàngara su bëri suñ fa fàtte woon gis nga ko tamit Saynabu Saynabu bintu Jaxsin ak mbokkam ma ba ñu jëlee décision bu wuuteeg bi yonantu bi jël yonantu bi xooleen dañoo bàyyi lañ def ñëw fekk si yonantu bi ndax alquran ne wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim wa man yaxsi laha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubinan ba yonent bi jëlee décision pour may ko Seydou mu opposé wu moog càmmeñam ja waaye mu jigéen nangu nañ la yonent bi wax loolu nga fekkee tamit maanaam ah, Saabit ibnu Qays ba ko yonent bi waxee dafa ñëw wuy si ko xattaawu mooy nettali mu ne nettali na ma noonaan doomu doomu jigéenu Saabit ibnu Qays ba aay ji wàcce ne yaa ayyuhal laziina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi su ko defee nag mu ne moom dugg na ci baayam doomam ja tëj buntam ba su ko defee ba mu ñëwee ah mu ñëw fekk fa yonantu ba mu yónni ko di ko laaj lan mooy xibaaru mbir mi mu ne ko man de xam naa xal ko naa rek man man man saabit ndax man sama kàddu dafa dégglu su may wax sama wax ji dafa yëkkatiku ca kaw ba mooy gën a kawe baatab yonantu bi te man ndax ana rajulun shadidu sawti axaafu an yakuna habita amali damay ragal sama jëf yëpp sippee ko man torox naa rek ah ba mu ñëwee ci yonent bi gisee moom dafa yonent bi ne ko lasta minhum yow bokkoo ci ñoom bal taisu bi xayrin bi xayrin wallahi yow da nga dund ci yiw ci teraanga ngay dund ba dee dee tamit ci teraanga loola génn ak yonent beeg jaxasoo ga moo ko waral ba alquran ne inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur kon gis nga ko arabiyatu ba timit génn jigéen dafa romb yonent bi yonent baa ngi julli ci masjidul madina moom kenn mu julli ci gannaawam xamutoon ne mooy yonantu bi mu jàng laha sabatu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsuum rek ndaw soosu daanu xëm dégg dégg yonantu bi sallallahu alayhi mu soppandiku nag ne nañ ko may ndox ñu soppi ko ko mu ximbalikoo mu yonantu bi nag ndeketoo moom la woon xamutoon ne ci gannaawam lay julli mu ne ko yaa haadihi ma lakki waaye waay waay yow ndaw si lan moo nekk ci yow looy jooy nii mu ne ko man daal téeréeb yàlla bi xanaa déggoo li mu wax laha sabatu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsuum bal huwa min kitaabillah almunazzil te mu ne ko kullu udwin min a'daa'i yu'azzab ala kulli baabin minha man xam naa juróom-ñaari cër yu ma yàlla sant naa ko wattu léegi tekki rek sama juróom-ñaari cër yi dañoo tëradi ëpp ma ëpp ma loxo jàpp naa ne bu yowmal qiyaamee cër bu nekk yàlla dana ko mbugal sama juróom-ñaari cër yi ci benn ci saf juróom-ñaari safaraam yi kon man torox naa loolu laa xalaat rek ma taxaw di jooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yaa arabiyatu bal li kulli baabin minhum juz'un maqsuum maanaam yu'azzabu ahli kullin minha ala qadri amalihim mooy ñoom ña war a dem safara danañ leen mbugal ci kenn ku ci nekk catégorie gi nga bokk rek ñu yóbbu la ca safara soosa saxiir ak lazaak xutamatoog xaawiyaak ah, ah, jahannamu ak jaxiim kenn ku ñeel boo ca xeyoo rek ñu yóbbu la ca booba su ko defee nag arabi yu ba door a bég nag arabi yotu bi kon door a bég gis ko abi dax daa ba ba ba yàlla ne man sa la si yuqrib la qardan xasanan dafa ñëw xuy si xuy si yonantu bi ci xalalam fekk na ñaari tool tàndarma yëpp gën a bëgg mu jël benn ba jox ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu jàngatoon nañ ko noonu ngay fekkee tamit xuyug maanaam ah, maanaam ah, Habib ak soxnaam sax noonu lañ ñëwee tamit ci wuyu yonent bi kon daal saxaaba yi saa yu yàlla mosee xoote rek ñi dem wuyu ji ko bu yonent bi wuyu xootee ñi dem wuyu ji ko ba yàlla na ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna ñoom ñëpp ñu daw kenn ku ne la nga gënoon a bëgg nga dem joxe ko ngir nga mën a xam ci lenn ci li nga gën a bëgg kon kooku mooy yàlla kooku mooy yonent bi dañu mukk di ñu jàngal suñu diine su ko defee tamit muy loo xam ne buñ ko toppee rek ñun ñëpp danañ texe buñ ko wanee gannaaw tamit ñun ñëpp danañ texe di yàqule kon nañ ci baxi xel bu baax a baax a baax a baax yow mi fi toog naan xooteeb yàlla bi waaye waaye buñ noddee loo jàppoon yëpp bàyyi ko nga dem wuy ju nodd gi boo bu bu yalwaankat bi taxawee sa buntu kër waaye waaye waay naan ngir yàlla ak yoonam lu waay lu waay àttan na ko def mastataa ah boo yëkkatee sarax nga jox ko ko rek wuy ji nga yàlla naka noonu nga yomb yalwaan ka ji trottoir yi da nga neew doole nga làmb sa yëkk yëkkati lu am solo jox leen boo ko defee rek xuy ji nga yàlla xuy ji nga yonantu bi tamit tudd la ci sa alal nit ku feebar mu am nga nga dëgg sa tànk dem seeti ko xuy ji nga yàlla ci seeti ku feebar demaat euh, euh, ñaar ñu yàquwante nga fexe ba jubale leen xuy ji nga yàlla ca wàllu wa kon lenn lu ca nekk rek ci li ñu yàlla sant boo ko taxawee rek wuyu ji nga yàlla lépp lu ñu yonantu bi sant sallallahu alayhi wa sallam ñu defee ko nam ko daan defee roy ko ca boobaa wuyu ji nañ sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ fi bàyyi gannaaw tamit ku koy taxawee rek yaa ngi continuer di leen wuyu ji ñu la wooyee tamit ci luy taxawal loola ak lu koy yëkkati lu koy jëmale kanam nga dem wuyu ji loola ba tey tamit wuyu ji nga ki la ko te fekk lam la wooyee lépp boo ko seetee luy dundal sa xol di la jural noflaayab ëllëg rek moo ci nekk loolu rek la ak loo sa mën ma sonn rek coono buy jeexal coono moo gën coono bu dul jeexal coono te képp koo xam ne la ngay sonn dugul topp yàlla yaa ngi ci coono bu dul dakkal coono waaye képp koo xam ne li nga nekk ak topp yàlla la lu coono ba rëy rëy coono buy dakkal coono rek la noonu la ko daan sëñ Abbas Sàll mu baax ma daan firi kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam naa bu subaa ci waxtu yi boo ma toppee nag ma ñëw yow ci ni daawu assaabi wa arbauna foofu nag mooy yaay wal sina amanu laa taxunu llaha wa rasula wa taxunu amanatikum wa antum taalamuuna waalamu annama amwalukum wa awlaadukum fitnatun wa anna laa indahu ajrun azim lan faal aaya vingt sept jëm ba vingt huit mooy nekk suñ boppam darsu bi ëllëg ci waxtu wi yal na yàlla defal ñu tawfiix defal ñu taysiir ci boppam def ñu dëgg-dëgg jullit may ñu mujj gu rafet dëppale ñu ak ngërmandeem dëppale ñu tamit ak yërmandeem luñ mën a xam yàlla nañu xam yàlla luñ mën a ñàkk tamit yàlla nañu xam yàlla yàlla jeexal fi mbooleem nattu gàllankoor gàllankoore tolof tolof yi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi di del siwaat ci kar